tey nag dama ñëw pour wax leen lan moo ma yëkkati dafa am juróomi góom yu métti juróomi góom yi benn bi mooy ndóol ndóol mooy nga dem ba li ngay dundee tëla walla balaa nga ko am dinga sonn ndóol mooy nga dëkk foo xam ne fii weer wu ne dañ lay taxawu nga war a fay luyaas mu tëla le cinq dootoo nelaw ñaareelu góom bi mooy ñàkk njàng parce que njàng farata la muy jàngu daara muy jàngu église muy jàng bu mu munti nekk di jàngu école farata la parce que sàkku xam-xam mooy tax nga am xarañ buy mën a tax nga liggéey ñetteelu góomam mooy ñàkk xëy nekk ci kër yeewu amoo foo jëm pëgg nga liggéey mais amoo liggéey ñeenteelu góom bi mooy ñàkk kaaraange ragal a jaar fii ndax dafa lëndëm ragal a jaar fii ndax dangay ragal saay-saay dogale la juróomeelu feebaram feebar la nag ña feebar bañ a mun a faju ñemeetoo dem ci docteur parce que da ragal mu jox la ordonnance boo waree wasin ñu teg la ci saret amulo centre de santé amo médicament juróomi gom yoyu mo dal sama xarit modal dal ki tax ma bëgg limay def ni mo dal ki nga xamne ki sama biir xol la ko def muy Sénégal dama len di laaj yeen ndax gom yi ma wax amna fi wala amu fi juróomi gomu Sénégal yoyu lañu bëgg fajj juróomi góomu Sénégal cinquième juróomeelu président Sénégal moo koy faj bërigo bu fees danaan del du yeung xam lu bare fekke lu bare ba pare ne tekk Sénégal nag ñi fi am coow di wër di wax te xamuñu sax li xew ci dëkk bi moo fi ëpp loolu la ñu bëgg mu dañ fi mbéy boo ci amul juróomi amuloo ko si mënul bay dundee bay denc bay soppi mais pour nga def ko il faut nga am souf sen souf si dañu koy sécuriser parce que dañuy changer code bi nga xamné depuis 1964 la fi la loi sur le domaine national buñu ko changer dinañu fexé ba souf si ngeen di mu ngeen sécuriser ko